Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñi ngi fi Njaasaan toog ak soxna si nga xam ni mooy Mariama Laye Souaré mooy soxna si nga xam ni moom moo waxoon démb ci tës bu Zik FM ci doomam ji nga xam ni dafa amoon jafe-jafe ci benn daara boo xam ni mi ngi ci wetu Njaasaan nekkul nag Njaasaan mi ngi ci diggante Njaasaan ak Njaxate réeroon ak li ci xew yëpp liñ naan nettali dañ koy bàyyi ci laminu borom mom mu netali ñu mbir ma nu mu ak itam lan la ci jëlee bi nga xamé ni garal nako kilifa yi nga xamné ñom ñoo nekk fi ci dëkk bi di ndiasan ñu bayi leen ak soxna mariam mu waxtaan ak ak yeen wa man la sama doom ñu man maa ngi tudd Mariama Laye Souare mais dama leen a bëgg xamal ne rek xale bi feeñ na ci jàmm ñu ngi si benn centre bi nga xam ne moo ngi Cees mais nag mbir mi bi balaa ñu jot ci xale bi ak fi ñu jaar dafa am lu ci laxasu parce que xale bi mbir mi daa dem ci yoon parce que sëriñu daara bi nga xam ne moom moo yoroon sama doom moom daani moom njaasaan la dëkk te affaire bi turu njaasaan dasee bokk te moom bokkul ci njaasaan ab sancaan la ab saalum saalum la sax dafa ñëw sañ si dëkk bi nag te tàggoowul yëgloowul te njaasaan bii ni muy tëddee ndongo yu fi nekk yëpp ak seeni sëriñ du ñuy yalwaani loo seeni ndongo te sëriñ tamit sant ñu seeni ndongo ñuy yalwaani ñenn ñi dañuy bay di dundee ñenn ñi di fayeeku ñenn ñi ci xalifa bi moo di jox ay matuwaay yi nga xam ne moom la ñuy ak seeni ndongo bi nga xam moo yor sama doom doon ko jàngal moom jaaru ci yoon bi nga xam ne ñi nga ñi nga xam ne dañoo yor daara ci biir Njaasaan fi ñu jaar ba yor seeni daara moom sëriñu daara boobu jaaru fa moom daal maanaam soo si kaw gàttal moom ay ay commerce lay def ci maanaam daal ci kaw gàttal daal day yalwaan loo samay doom te ba mu koy jël nag di ko jox sama doom damaa ne ko yalwaan loo sama doom su fekkee a yalwaan loo sama ma ko bi ma ko joxee nag sama doom wax ko wax yooyu noonu ba pare dama doon jël sama xaalis di ko ko yónnee damaa doon jël sama xaalis di ko ko yónnee chaque chaque dix su ma liggéeyee ba ba fayeeku chaque fukki fan laa doon fayeeku si usine bi ma doon liggéeyee su ma fayeekoo ma ma yónnee ko yenn saay ma yónnee ko seen bi yenn saay ma defar sama beñe jënd samay meew jënd samay café saabu omo lépp loo xam ne samay ndongo war nañ koo soxla rek ma yónnee ko ko jël xaalis teg ko ci mais nag sama doom réer na lu mat weer ak mu teg moom waxuma ko mu toog ba altine bii nii génn mu ne ma sa doom réer na léegi nag moom bi problème bi yépp amee moom daa jël sama numéro dugal ko liste noire jël ki nga xam ne moom moo ma boole ak moom ma indi samay doom ci daara ji mu dugal ñu liste noire looloo tax na ñun ñu daal di dem si yoon daal di dem nag si tës wax ko parce que ñun ñëpp suñu xel yi dafa jax soo xale bi feeñ na xale bi instant bi feeñ na depuis le vingt six janvier lañ ko for yóbbu ko ci benn centre dafa mm-hmm. bare norme bi nga xam ne dëkk bii noonu la ñuy doxalee moom topp ko jërëjëf macha allah léegi nga def ngi ci turu xalifa bi maa ngi ci wax bi ma wax ba nga xam ne laal na deru Njaasaan laal na xalifa bi laal na képp ki nga xam ne taalibe la wala mbokk la bi nga xam ne si njaasaan nga bokk ndax kenn ku ne bu sa tarixa lañ ko def du la neex hmm. maa ngi jégalu tuuti di jégalu di leen wax ne nag xale bi feeñ na si jàmm macha allah